gannaaw namoon ngeen ñu sax waaye xam nañ ni namb bu ngeen ñu namm rek namm nañ leen namm ju ko raw tey ñu dalal xale boo xamante ne vraiment naan la ci làmb làmb am nañ ci moom yaakaar muy Petit mu nekk xale boo xamante ne ma nga fële ci Rock Énergie buñ ne Petit nag ñu ci bari dañuy wax melokaan bi nga xamante ne jël na ko ci nijaay ji di Modou Xarañ Lo nduroo bi bind bi xarit wax dëgg wolof moo ne deret moom du réer ginnaaw loolu dañu koy bàyyi mu nuyu mbokk internet yi su ko defee ñu wéelu waxtaan bi mbër maa ngi lay nuyu bu baax di la siyaar ah maa ngi lay fay bu baax di la wax auzu billahi min sar rajim bismillahi rahmani rahim ginnaaw di sant sama ñaar waajur bu baax di la nuyu bu baax di nuyu su caméraman di nuyu El Hadj hmm. John waaw sama ndijaay El Hadj hmm. di bëggee sama gaay bu hmm. ak Papa Alet Sadio Mané Youssou Gueye ak Papa Gueye sama sama gaay di bëggee sama jigéen Ada Adama Watara a ko bëgg bu baax. na hmm. neex na a neex parce que koo laaj ndam neex na daal la neex na lan boo ci a neex. ndam ah ndam ndam neex na de. Hmm. ndam genre làmb dafa métti quoi làmb dafa métti. Hmm. le fait que nga préparé combat ay lu yàgg rek. benn bés rek ñëw desi quoi. yàlla suturaal boo daanee rek saa genre. loolu beneen affaire la quoi saa yi. non combat deux mois combat xale tamit mënul métti. waaw non combat mais mënul métti loolu mooy foog rek combat deux mois mais day métti de. Hmm. si day métti. yow da nekk seen say morom duñ la tane dara. yaa ñoom ñuy yëkkati seen xaalis di def ci yow yow li ngay am da koy denc ñoom li ñuy am dañ koy bokk ak yow. ndeysaan. te doo leen tane dara quoi. Hmm. xam nga loolu yombul. Hmm. loolu rek déjà yombul. te dañuy perte dañuy bàyyi seen temps yëpp. Hmm. Eh, te ku ci nekk am nga liggéey. Hmm. nga da ngay bàyyi sa liggéey ma jaral la nga dem làmb ji jaral la nga dem voyage ñëw. Hmm. lépp pour làmb ji man ma toog fii nii di entraîner. nga xam nga loolu yombul. bi nga bëree keroog. alhamdulilah bi nga wax gëmee woo ko sax parce que alhamdulilah bi stade bi ñëpp ko dégg. <laughs> non mais mais mais mais mais mais faa mu sant yàlla ko euh. nit looy def boobu léegi ñu ngi bëree di entraîner xam nga. di préparer quoi. Hmm. ñu dem yàlla suturaal ñu mooy ñu dem duñ def lu dul sant yàlla alhamdulilah santaat yàlla baax a baax. Hmm. Hmm. et eh, man heure bu ma daanee alhamdulilah laa mooy loolu ah. combat bi ci ñaata mois nga ko jël. combat bi yàgg na combat bi kay combat bi yàgg na mais nekkul woon adversaire bi nag. waaw ah, man ak man ak juddeuse woon juddeuse. juddeuse waaw maa ngi ci contrat loolu tax sax boo seetloo ma gëj a luy combat bi mu waree am diggante Ama Baldé ak. Papa Sow bi muy doog am ba léegi yow yaa ngi bokk. ci kii Papa Sow surtout Papa Sow. waaw maa ngi woon ci contrat kay deux ans yëpp xaw trois ans yëpp maa ngi ci contrat bi. trois ans. wallaahi ci mbër bu na na de. Hmm. Hmm. mais nga bëre keroog nga nga nga bëre ñu gis beneen Petit Lo parce que yaakaar naa bi nga mujjee bëre Ahmed Lagrosse nga bëre stade Iba Mar mu daan. mu daan dellu siwaat war a ñëw. wara a rectifier erreur nga xamante ni amoon go Mhm. sa papa seen diggante yéen ñaar gis naa ni ngeen mel lan la la yeb ak famille bi lan lañ la wax. Euh, sama papa moom ba moom depuis sax bañ ma daanee. Hmm. waxuma dara quoi fekk na moom mooy jooy mu dalal ma quoi mu ne ma eh, lii du dara nga dem nga sang nga sol eh, ñëpp dalal ma quoi sama ñëpp dalal ma xamal ma que ni yow xale nga tolloogoo fay amee bay ñax hmm. mhm. te tamit aussi dégguma ci benn wax bu négatif comme mbër bi dafa lii lii moo ko daan non ñëpp benn wax bi la rek. Hmm. beneen yoon ne da ma daanu boobu rek gën ci am ay jàppale. Hmm. gars yi jàppale mu bu baax. Hmm. Hmm, di santaat sama gaay bu baax sama gaay gën a taxaw gën a jàpp. wallaahi su mel ni Pape Diagne El Hadj ak sama ndijaay Jantal Mara ak sama yaay soxnam sa kooku sama yaay la soxnam. moom tamit mooy mu soñu si jantal bu baax daal. Eh, gars yi nga nekk xale euh, dugg ci làmb. def euh, trois combats su ma juumul. sa première sortie nga am ndam. deuxième bi nga ñàkk troisième bi nga amaat ndam sa quatrième combat sa prochain adversaire kan la war a doon a kan nga yaakaar ni ci nga bokk. ah nañ ma jox samay morom rek nañ ma jox nañ ma jox ci ponkali sax laa ndax man samay morom mun naa ne samay bëreeg samay morom rek dañ naan dañ koy utal yoon. nañ ma jox nañ ma jox ci ponkali. Hmm. Eh, waaw nañ ma jox ci ponkali ndax dama bëgg combat yi nga xamante ne su ma taxawee danaan hi Amet bu ci génnee ñu xam ne mbër la. ponkali ñooy ñan ah mooy ñi tëj ci làmb ji rek yow xam nga yow yaa gën a xam booy booy. non parce que am na ci ñoo xamante ne tën nañ ci làmb mais làmb booleegul ak ñoom. parce que liggéeyoo yaakaar na wala raw nañ la ci ay nombre de combats ku bëre sept combats yow nga bëre trois wala ñuy bëre huit combats genre yu deme noonu. parce ah, que actuellement nii war nga mën a taamu mbër. non man mënu ma taamu mbër nag mais xam nga gars aussi mën nañ ma ëpp mën nañ ëpp ay combats. waaw hmm. ah, mais ci sama xalaat bu man kenn ci tur si ñoom ñi nga wax ni sama génération Hmm. ëppin ma tur ëppin ma coow làmb aussi. Hmm. waaw mun nañ ma ëpp ay combat nag mën nañ ma njëkk a bëre aussi. mais est que du sa turu nijaay moo tax moo la moo la gën a pousse ci làmb. parce que ñu bari dañ naan jarbaatu Modou Lo du jarbaatu Modou Lo. mais sama turu nijaay tamit sama turu papa du ma jàppale ci géew bi de. Hmm. <laughs> ah waaw géew bu Modou du dugg dóoral la du dugg daanal la. la fay xew yaa koy def. ah la fay xew yaa koy def. kañ ngeen mujjee gisante ci sa combat kañ leen mujjee gisante ci sama combat combat moom ñoo ko préparé woon ba ci semaine combat bi ñoo nekkoon euh, ba ñëw suba la combat bi daf ma woo téléphone ma bëree ba ci ba ci guddi gi tamit ñëw na kër ga. Hmm. Mhm. bi ngay biñ ne suba la bi woo na la téléphone lu ngeen déggante ci làmb ji lu mu la ci wax. non daf ma woo rek ne ma genre loo préparé préparé nga ko lu yàgg préparé nga ko ay deux ans. Hmm. te benn jour rek moo ci des. boo demee jël sa temps bul yàq sa combat. Hmm. xoolal préparation bi yàgg na métti na trop. vraiment laaj nga def ko Hmm. loolu la waaw. di ko sant bu baax di ko gërëm mu dem. jàppale conseil boobu rek la jox. wallaahi nee na ma tey rek <laughs> ah mais wax na dëgg. léegi bi nga daalee bu ñëw ci kër gi lan la la wax. Ah, ah félicitation rek la ma wax ah. loolu. félicitation kese kese kese. ah mais félicitation rek la ma wax félicité ma. xam ñaanal ma ndam bi jig ma te moom tamit aussi daf may ñaanal invité yi ba ba ñu nee suba combat rek bu ma woowee daf may ñaanal rek waa na ma ñu ngi lay ñaanal bu baax. ndeysaan mm. seen diggante yéen ñaar lan la yaa ngi Modou Lo. ah sama papa la ah sama papa la comme relation papa ak doom rek. <laughs> da ngeen rusante wala ñeme nga ko. non <laughs> ragal moo ko de. ragal mais rusante wuñ tamit noonu ah waaw. di ko balak di ko sànni xeer des fois. ko dóor ci xeer ah pour ça ñu mbalagante nii rek. Ah, hmm. yéen ah, ku dàq bëre. <laughs> non isa dàqu ma ko bëre. yaa ko dàq ah, fit gi ci Modou ak mën sañ biir géew. boobu yaa ngi yaa ngi ciy gis. Ah, Modou yan qualité nga gis ci moom en tant xale yan qualité nga gis ci Modou. ah jom fula ak fayda. Hmm, xam nga ni dafa am jom. dafa am jom fula ak fayda. Hmm, ci entraînement ci lépp. Hmm, waaw ci lépp wax dëgg wallaahi. damay gis booy wax sax damay gis jëmmi Modou Lo quoi. parce que li ngay defee <laughs> li waxee waaw ci jom ci lépp waaw xam booy li ma la wax. damay gis jëmmi Modou quoi ci yow. yaay roy Modou wala Modou Modou lay roy wala deret moo leen boole man comprendre moo ko ah deret moo ñu boole wala isa nekkul tamit ah. mu mu nekk actuellement maa ngi gis ci ay affiche ngaa yi di wax ci sa combat yow ak Thiatou Daouda Fall mi bëree barki démb Thiatou Daouda Fall looy wax ci moom ah Thiatou Daouda Fall mbër la hmm. jàmbaar la aussi hmm. ñun ñëpp ay xale lañ hmm. mooy li ma la wax sànq rek amaana ñun ñëpp ñoo moo pay combat mais ëppuñ ma tur ci làmb ci li ma jàpp ëppuñ ma coow ci làmb aussi. Hmm. waaw. Thiatou Daouda Fall instant bu ngeen doon bëree yéen ñaar làmb boole na leen. bu ñu doon bëree ñun ñaar. waaw nii. ah waaw mais làmb mën nañu boole kay ndax mu ngi ci làmb ji ma ci làmb ji. mais actuellement nii ci ay combat bu ñu doon démarrer seen. combat waaw waaw actuellement nii ci ay combat ay combat boolewuñu. waaw combat boolewul waaw palmarès boolewuñu quoi. Ah, am na sept combat xaw ma huit combat man trois combat laa am. man samay morom ñi ngi joow ñëpp man maa ci gën a néew ay combat trois combat nga am te moom mu ngi am sept combat kon ah, gars yi sax ñaata combat wax dëgg dama kaa à peu près noonu rek waaw dama war li ma foog quoi ci li ma sama xalaat rek quoi hmm. mais xaw ma ñaata combat la bëri mais actuellement nii bu promoteur ñëwoon bëggoon démarrer sa combat yow ak Thiatou Daouda Fall ne la damaa bëgg ngeen bëre yéen ñaar yow moom di nga nangu est-ce que moom dina nangu waaw mais est-ce moom dina nangu mais man moom parce que yow ni nga waxee xam bañ ak sama gaay duñ bañ xanaa <laughs> ndax man amul lu may nangu rek man sama papa ak sama gaay ñooy nangu. Hmm. Hmm. mais moom nag. moom waaw waaw moom xaw ma. yow li logique làmb laaj. Hmm. jàpp nga ni war ngeen a bëri. logique làmb. logique làmb lu mu laaj ko. parce que logique làmb mooy ñaari xale yoo xamante ni ay adversaire de taille lañ. palmarès boole na leen làmb boole na leen coow làmb boole na leen. ñu war a mën a bëre loolu boole na leen yéen ñaar. loolu boole gu ñu. waaw mm. ndax at ndax palmarès rek bokkul. bu du caatu daaw dafa ñan nga yaakaar ni war nga leen mën a bëri ñoom. ah man man mooy samay morom rek xam man mënu ma taamu kenn. man trois bëgg naa wax ma trois trois adversaires yoo xam ne sax xam nga ni caatu daaw dafa gaaw gaa génn na mais trois adversaires yoo xam ne njort nga ni war nañu mën a laale. non Issa yow doo wax trois adversaires wala moo wax. wala nga wax sama nijaay mu wax a wax trois adversaires man damaa xam ni ci ban catégorie nga bokk. <laughs> yaa <laughs> bàyyil. waaw yaa ma gën a xam pour yow chaque jour yaa Ah. chaque jour nga dem stade. Ah. chaque lamb da ngay dem stade. Ah. te man bu bu ma amul mbër buy bëree bu nekk suñu équipe buy bëree du ma dem stade rare laa dem stade. mais yow xam nga mbëri bu ba xam nga ci combat boo jógee ak man combat xam naa nii rek. Hmm. bi bëgg nga ci bëri ñaata combat. 4 euh, ba cinq combat kay wallaahi. loolu mën naa nekk. ah mën na nekk kay. Hmm. bëgg nañ ko de. lamb actuellement ñu ngi gis euh, gars yi ngi waajal affiche bu mag. Hmm. mu dox ci diggante Modou Lo ak Ama Balde. Modou war a teg couronne roi des arènes bi jëlee ko Pikine war ko dugalaat biir Pikine en tant que ki nga xamante doom la sa papa di bëri tey lan nga koy ñaax ak ban nan la fas yéene a bëri ak Ama a ci sa sama ko sa xalaat yow. avant tout dañ koy ñaanal yàlla defal ko sutura rek. Hmm. defal ko sutura. waaw may ko ndam ci combat boobu. waaw hmm. ah, damay naan sax yàlla defal ñu sutura may ñu ndam ci combat hmm. a ah, ndax buy bëri ñun ñoo koy bëri. waaw mais moom moom dañ koy ñaanal rek. gaa yi ah, dañuy sël bi ndox du bàyyi yoonam day attaqué Modou de. ah mais ndox du bàyyi yoonam tamit Modou du bàyyi yoonam de. Hmm. waaw. amaa nee bu arbitre ne prive day attaqué de day. attaqué waaye daal li mu war a nekk mi ngi ci dañ koy ñaanal yàlla defal ko sutura. ci li mu war a nekk moom mi ngi ci wax dëgg. Hmm. Hmm. am nga koo bëgg ci làmb di ko roy di ko imiter boo duggee stade sax di gis jëmmam ci yow. Modou Lo. kese. ci doxin bi sax pantal bi pantal bi sax da koy. non du ma pantal nag. <laughs> Modou waaye mais Modou day pantal. ah Modou moom njaawam moom kese moom <laughs> moom mooy njaawam la yor quoi. Modou day jàpp bi mel ni ko am problème mu kii. non moom kay njaawam la yor laa la wax. Euh. Hmm. mais kontaan naa bu baax a baax a baax ci ci ci dalal bi ci waxtaanu làmb jeeg ci yu mel na promoteurs yi actuellement ñu ngi lay démarrer. ah ñu ngi woo sama papa ñu ngi woo sama papa As. Hmm. sama papa As hmm. bëgg say combat ñu ngi lay wax yan la ñuy dox. ah ñu ngi ma ay eh, combat rek man waxuñu ma sax tuuti rek man sa combat rek xam naa léegi mu sotti. Hmm. ah di ñaan yàlla def ci def ci rek defal ñu lu gën ci ñun rek quoi. Hmm. Hmm. maa lay jaajëfal bu a baax a baax. ah maa ngi bëggee tamit maa ngi bëggee sama ndijaay El Hadj. xam nga di bëggee sama waa Gàlle yëpp ak ñoom papa Modou Gueye xam nga papa Ndiaga. ak papa Ablaye papa Lo xam nga ak ñoom Simon xam ak noog su bébé Isilese bu nekk Mbour noog su bébé Isilese moom tamit mooy loolu sama jigéen la eh. daf mm. may jàppale ci lu bari quoi sama jigéen la mm. Mm, di bëggee sama waa gàlle yëpp yëpp yëpp yëpp ak sama yaay ak sama taan taamami may tan ci ñaanal taanet tamit taa anet kon ba la dëgg dis a dafa feebar yàlla na ko yàlla yëkkati foogu boppam amiin eh, ak Thierno Thier eh, benn Thier quoi Thier kooku sama waay la quoi su ma amee combat du tëdd du nelaw quoi def dara eh, kooku rek kooku rek na mën a tax mooy lu ma doon def benn ma koy yokku Mm-hmm. wallaahi su ma amee combat bu combat bi xasee ba des un mois. Mm-hmm. dootul toog dootul taxawoon. waaw chaque jour mu ngi dox ci combat bi chaque jour. Mm-hmm. Eh, baaji li man ñoon ñoo tax mooy sonn barki alxuraan ñi ànd ak man. wallaahi sama gars ñoo tax mooy sonn. ndeysaan. dama la fàtte laaj question bi mujj sa diggante Cheikh Tidiane Niang bu leen lamb boole di ngeen bëre. Cheikh Tidiane Niang non non lamb bu ñu boole duñ bëre Cheikh Tidiane Niang. lu tax du ngeen bëre. <laughs> ah doomu parcelle la man doomu parcelle la waaw eh, mais moom doomu doomu man dem doom ñoo joor la ndax man damaa dem ñoo joor ñu def ma comme seen doom. Oh. waaw di wax tamit bon rétablissement quoi di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm xam nga. Hmm. waaw li si carrière am yëpp nekk ay xéwal. ah di sant tamit faye bu baax faye bu ningi faye bu hmm. ningi nanga ndeysaan waaw ma koy sant bu baax di ko gërëm hmm. eh, ak waa ñoojoor yëpp yëpp yëpp ñoom mama jànge ñoom bind ñoom saria xam nga ak kulaar xam amina ak maam ndiaye idi ak papa adama Euh, di bëggee ñëpp di bëggee waa Ñoojoor yëpp hmm. ak waa Parcelles waa Tëngéej yëpp di bëggee ñëpp daal maa lay jaajëfal bu baax a baax waaw maa lay jaajëfal moom tamit di bëggee waa dix waa dix doole yëpp Parcelles bu vingt six hmm. ak hmm. ak sama yaay soxnaam waaw di bëggee ñëpp mbokk yi jërëjëf ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax Petit Lo lañ dalaloon fas yéene di waxtaan ak moom ci li nga xamante ni eh, day yokk ci carrière waaye waxtaan nañ ci loo xamante ci làmb